asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu soppe yi waa daara ji dellusiwaat nañu ak yéen ci suñu jataayu Laxdari yu ci jataayu ñaar fukkeel bi ak benn muy vingt et unième ñu war jàng nag li aju ci wàllu mbërëk muy lu am solo fas fil xaydi euh, ak teqale la ci wàllu mbërëk muy règle yi dal jigéen weer wu jot tabaarakallaahu mu ne wan nisaau jigéen mubtada atun buy soog a tàmbalee gis baax moo am jigéen ju soog a tàmbalee gis baax nga xam ne nag commencé naa majeur waaye jigéen moom bu commencé gis baax rek règle mooy commencé na am bàkkaar majeur na léegi li war ndeyam ak baayam war na ko julleeg woor ak dem màkk bu ko mëneeg euh, fa tabaarakallaahu yooyu yëpp léegi euh, war na ci kawam mën naa am fukki at ak ñeent gis mbaax mën naa am fukki at ak ñett commencé gis baax sans dépend rek mu ne jigéen jooju moo am nag wa mu'taadatun ak ko aadawoo gis koo xam ni yàgg naa gis mbaax dégg nga de wa xaamilun ak aji ëmb ji jigéen ji nga xamante ne moom tamit dafa ëmb moom tamit mën naa ëmb gis règle loola dina leer ci kanam bu soobee yàlla lu ci àtte mu ne wa aktharul xayd gën jaa bëri deretu mbërëk lil ati ñeel kiy soog a tàmbalee gis mbaax jigéen ji nga xam ne mi ngi soog a commencé gis mbaax nag kooka diir ba xamsata achara yow man fukki fan ak juróom la muy 15 jours kiy soog a commencé gis mbaax moom deret ja mën naa continuer moom ba am 15 jours muy fukki fan ak juróom dégg nga de soog a arrêté su arrêté ci diggante bi itam tamatu ko itam baax na day sangu farata commencé julli tabaarakallaahu mu ne walil muctaadati ñeel na aji aadawoo ji mooy ki nga xam ne yàgg na koo gis-gisati ko aadatu xaa kook moom day dépendre ci aadaam rek fan yi mu ko daan gis ci aadaam ca lay sukkandiku moom moo xam juróomi fan la moo xam fukki fan la moo xam ñetti fan la moo xam ñaari fan la kooku moom foofu rek lay dépendre mu ne fa intamaadaa bu continuer bi xaa ci moom addamu deret ja nag léegi juróomi fan la ko daan gis wala juróom benn fan léegi nag gis na juróomi fan ya mbaa juróom benn fan ya deret ja continuer su boobaa nee na zaadat na yokk moom ki nga xam ne moom baaxoo na koo gis lay wax de waaw kooku mooy yokk salaasata dégg nga eh, ay yaamin ñetti fan lay yokk maalam tujaawis fii ak paasewul nag fii ak du jéggi du dépassé xamsata achara man fukki fan ak juróomi waaw maanaam fukki fan yeeg juróom yi moom règle mënu koo paase léegi nga xamante nii moom yàgg na koo gis dégg nga de juróomi fan moo nekkoon aadaam dañ koy may mu yokk ñetti fan ñetti fan yi nag nii lay demee day yokk benn fan bu arrêté baax na day sangu julli bu yokkee benn fan ba arrêté wul day yokkaat ñaareelu fan su arrêté baax na day sangu julli bu ñaari fan ya matee arrêté wul day yokkaat beneen muy ñetteelu fan ba bu ci arrêté ak bu ci arrêté wul yëpp day sangu julli te dem seeti nag euh, docteur ndax su boobaa boobu deret normalatul deretu jorngel lañ koy tuddee waaw kon nag maanaam du depa du dépassé euh, quinze jours yi mooy du ko dépassé aussi mooy ki nga xam ne maanaam aadaam dafa nekkoon par exemple fukki fan ak ñett koo xam ne moom aadaam fukki fan ñett kon xam nga ko bu yokkee ñetti fan day ëpp fukki fan yeeg juróom dégg nga de kon day nekk 16 jours te du jéggi 15 jours kon kooku ñaari fan rek lay mën a dolli ki nga xam ni aadam 13 jours la kooko kenn du ko wax yokkal ñetti fan kon kooku ñaar lay yokk parce que deret ji warul dépasser 15 jours yi moom foofu lay yem kon su ko defee bu fekkee 13 jours fa tabaarakallaahu gis na ko mbaax arrêté wul day yokk benn fan bu arrêté mu sangu julli bu arrêté mu yokkaat beneen fan muy ñaar bu arrêté bu arrêté wul yëpp day sangu julli te dem seeti boppam dégg nga de mooy ki nga xam ni moom baaxoo na koo gis aada woon na koo gis mais kii soog a tàmbali moom kooku moom mën na dem ba 15 jours su boobaa bu 15 jours yi matee ci kii soog a tàmbali mu arrêté mu arrêté wul yëpp day sangu julli mu ne walil xaamili ñeel na aji ëmb ji baada salaatati ashurin gannaaw ñetti weer ki ëmb ba am ñetti weer mën naa gis baax su boobaa moom mën naa yokk ca euh, bés ya xamsata achara yow man quinze jours muy fukki fan ak juróom dégg nga wanax waxaa ak yu niroog moom muy ñaar fukk kon ki nga xamante ne nii dafa ëmb ba ëmb ba am trois mois mu gis règle am kooku mën naa dem ak règle boobu ba mu am vingt jours loolu la bëgg a wax mu ne wa baada sittati ashhurin gannaaw juróom benn weer muy six mois ki nga xam ne dafa ëmb ba am 6 mois gis règle kooka na mën na am ak règle ba ñaar fukki fan wa nax wa wa ak yu nuroog ñaar fukk muy dool wàcc fukk muy fanweer kon ki nga xam ne ëmb na ba am 6 mois mën naa gis trent jours règle yëpp waaw mais bu bu tabaarakallaahu bu arrêté ci diggante bi day sangu te julli waaw parce que ëmb moom du tee julli waaw gis règle mooy teree julli dégg nga de kon ki ëmb ba am trois mois salaasati ashurin moom day yokk fukki fan ak juróom wan nax waxaa mooy ak yu nuroog moom moom mooy mu yokkaat ci yeneen juróom euh, muy ñaar fukki fan wa baada sitati ashurin gannaaw juróom benn weer ëmb bi am na ko ashuruuna moom lay yokk ñaar fukki fan wan nax waxaa ak yu nuroog ñaar fukk fukk la ci tegaat kon mooy weer mu ne fa inin qataa bu fekkee dafay daggatoo nag maanaam deret ji moom day ñëw ak dem day day jékki ñëw mu foog ne laab na mu ñëwaat moo tax mu ne fa inin xataa bu daggatoo ak dam mu ji lafaqat na tàppe te mooy nay wàññi rek nay konte ay yaamahu fani deretam fani deret ji rek waaw ay yaamahu fani deret ji lay lay konte fan yi mu ñëwee daal lay konte yi mu ñëwul moom du ko ci boole xataa tukammila ba mu matal aadataha aadaam waaw su boobaa nay compter fan yi nga xam ne ci la ko deret ji dikkal ba mu yëg ne daal moom euh, euh, bisam yi nga xamante ni nii ca la ko baaxoo woon di gis léegi bis ya matal na ko su boobaa nag euh, da cay yokk li mu la waxoon ñetti fan ya feeg du jéggi quinze jours dégg nga de bu arrêté nag mu sangu julli bu arrêté wul te aadaam matal na ko ci fan yi nga xam ne deret ji ñëw na mu compter ko aada ja mat na yokk na ci ñetti fan bu fekkee euh, matul fukki fan ak juróom bu arrêté nag na dem sangu te julli bu arrêté wul na sangu te julli te dem seeti docteur fa tabaarakallaahu kon mën nañoo yee foofu ba dellusiwaat incha allahu rabbi jërë ngeen jëf aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.